bari boobu moom mooy tax nit ñi di posé question lan mooy facture avoir facture d' avoir mooy lan ak ni ñu defaree lii ma jot a expliqué bu ñu paree bu ñu ko bu ñu ko bu ci tableau bi di ngeen xam bu baax a baax baax lan lu jiitu loolu nag bala ñuy àgg facture d' avoir dañuy jëkkee

suufu adresse client bi ak identité bind fii li nga wax ni facture numéro dooga nag def sa tableau loolu mën na nekk boo mun enquête parce que enquête nag dañu waxante dëkk bu yàggul la am ci terewul nit ñi dañ daan am ay facture maanaam li ñu li amul mooy enquête fi ko nit ñi bëgg a nga xam ne amul enquête amul enquête mais l' essentiel feuille bi bu fekkente ne jëm seen wane na kiy jaay wax ki muy jënd mais loolu en terme de ni ko nit ñi formaliser ci seen bopp loolu loolu obligatoire parce que grand boo amul outil informatique bi pour nga def loolu lay def. allez. dégg nga pare nga bi ak bii ak bii bii. ak la ñu ni la lii manqué na ci te dina tax facture bi du taxaw taxawaayu mucc ayib ne la lii tamit da ko ciy dolli bu fekkente ni bëgg nga facture bi taxawee ni nga xamante ni ndax facture li ko tax a jóg boo demee ca. sart ba nga xamanteni ci la des obligations civiles et commerciales dañ caa wax lamu wara taxawé ndax la def ci biir mu doon lo xamanteni day nek obligation. obligation manam lu war la doonul luñ lay bal loola bok na ci def ni adresse jaay man ak mën na nekk fii comme mën na nekk fii fii ni mën na fi nekk mais de voilà bind na ko mën na nekk tamit fii boo paree loolu fekk lu jiitu tamit def nañu date bi kon lii yëpp jaaragul na yoon bu ñu ñëwee nag di wàcc ci maanaam facture bi ci boppam ni mu ko defaree waaw euh, ni ñuy tuddee li ñuy jaay. moy moy moy désignation wala libellé mënoon na bind fi sax pour mu l'air a ci bop nit ñi waye nak ñun dañoo copier modèle ñaata la leen jox 34 000 200 voilà formation biir lii ci la bokk muy gestion de stabilité financière tey ñu bëri fii te woowoon ci nga xamante ni mooy facilitatrice yi ñuy jàngale la alphabétisation ñi nga xamante ni mooy comité de gestion pour ñu jàngal leen lan la ñuy saytoo moom seen i activité lu jëm ci administration ak lu jëm ci finance pour ñu mën a taxawal à la fin cinq GIE au niveau de la commune. premier mooy projet bi projet bi c'est-à-dire boo xoolee ñuy jàngale jigéen ñi koy jàngale ñooy jàngal seen boppam jigéen te tamit ñoom dañu bëgg ñun ñu am autonomie ba nga xamante ni ñoom ñooy gérer seen bopp seen activité moo tax ñu def projet bi pour gën leen outiller pour ñu gën a mën a saytu seen seen bëgg di sax nag ñi nga xamante ni moom mooy les facilitatrices Euh, ñi nga xamante ni ñetti weer rek ñoo ngi def formation bi ak euh, ñi nga xamante ni mooy comité de gestion yi nga xamante ni ñooy proposé euh, maanaam ñoo nekk ci biir groupe yooyu noonu. ayib la dara nag moom lañ koy wax sant bi waaw man man dama si doon sunu coordinateur ndax yàgg nañu koy def ak projet bi mooy ndax day daal xëy dañ daal ndax dañu suñu dinañ jàng ñu saytoo xaalis dinañ def ay formation yoo xam ne mbir la lay ñu dégg céréales locales ak suñu say ak sabon loolu yëpp day teel yow même boo nekkul si commune sax boo demee sa kër mën ngaa def autonomisation kon bu boobaa chaque fois ma am entreprise entreprise boobu wante dañoo moo yaraat jigéen bu fekkee am na jigéen bu fekkee jigéen bu fekkee am autorisation boo xam ne mooy jigéen bopp di defar jigéen bu yaraat yi jàmm moom jàmm lii moo ñu maan woon parce que ñu màtte ndax biñ ci bari màtte jàppale ñu ñu màtte parce que ñu gën a dëkk sax di ñaan yàlla tuuti bëri na ci yaakaar di sant uh, uh, Basir ngoom bu baax a baax a baax a baax ndax man de sama classe gi saa yu ñu demee ba bëgg a dellu ginnaaw bu ñu ko gisee dañuy gën a góorgóorlu kon nag dañ leen di dañuy ñaan ñëpp ñi fi nekk di way xam lu yi di kat yi yalla may ñu gudd fan gu and ak wër yalla may ñu yeggale suñu yéene mom limu mu ci jigéenu yarax yalla nako yalla may kattan bu mu koy yeggalé ak mbolom mu jël te lépp luñ ci am rek yalla doon suñu muut ak suñu wërsëg mom mom dañ koy ñaanal rek tax buñu amatoon ñaar wala ñett ñu melni mom no kon yarax ba da wax ma tànk waaye bopp la ñuy di dem sha allah jambar la dañ koy ñaanal yalla lafal ka cat te it yalla ful njabot gi jappalé leen jappalé mbolom ji luñuy daw yëpp njabot tax ñuy daw te jigéen ku ko dimbali rek dimbali nga njabot kon yàlla na ko yàlla fay xolam ci ñun loolu la amon ci dama ci jërëjë kon def fi 3 jours formation wa ñu rafet lu lool formation bi ma sha allah ki ñu doon formé tom jangal nañu lo xamni dal bu ñu génnee ci biti mom ñi tok ci université sax duñu yobul dara di gërëm bas mi indi projet bi fi mom tam sonna na ci torop ñu ñaan yalla lepp lu mu ci sonna yalla naka ci yalla fay te lii ñu fi jàng yàlla nañ ko jëriñoo ak mboolem jullit ci barke Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam hmm? formation bi formation euh, lii la woon formation projet projet d'appui alphabétisation bi waaw si lañ doon yëngu ci maanaam ni ñuy saytoo affaire xaalis daal ci mbirum booy jaay facturation beeg yooyu wàllam wàllum TVA bi NINEA ak yooyu yëpp daal gestion yooyu si lañ doon jàmm si la ñu doon formé daal yàlla def na ci jàmm nag commencé nañ ko ci bisimilah rahmaani rahiim eggalee ko alhamdulilah rabbil alamin salaamaaleykum maa ngi tudd Marème Ndoye waaw dëkk Yaraax gi bokk ci classe alphabétisation yu Hann ah tey eh, fan yi nag dañu fi dajale woon pour jàngal ñu bés bu ñu taxawalee suñu entreprise nan lañ koy saytoo maanaam mbirum gestion daal lañu doon jàngal tey waaw am nañ fi ñaari fan waaw na dugg moom jàng bi leer na nañu moom yeneen formation waaw bëri na si li ñu wax daal nee nañ ñu programme nañ di jëm si comme lii moo jiitu formation bi moo jiitu muy gestion bu ñu paree nag ñu former ñu lan mooy tax ñu war dugg si liggéey bi maanaam mbiru defar saabu defar eau de javel céréales locales yeeg yëpp bu ñu ko defaree di def commercialisation bi looloo tax tey ñu def formation bi pour bu ñu duggee si commercialisation bi ñu am ay jumtukaay yoo xam ne dinañu mën a permettre ñu xam suñu jaay. lu lu suy dox ak lu si doxul moo waral formation bi waaw waaw merci beaucoup ma ne gërëm naa sant naa